maa ngi koy wax. Mhm. déjà sur les réseaux sociaux ça a été à la une ñëpp di ko waxtaanee xëy na ma gis sama benn xarit mu ne c'est une c'est un décret qui ne va pas plaire plus d'un. Mhm. notamment ñi nga xamante ni c'est des anciens ministres et qui bénéficient de cet avantage xam nga bi bi ñu waxee loolu rek sama xel dafa dem ci les militaires invalides ñoom ñi nga xamante ne ils ont défendu la nation. taxaw jaay seen bakkan ndax réewu Sénégal am ci ñoom ñoo xamante ne gaañu nañu am ci ñoom ñoo xamante ne jël nañ ci ab laago état bu Sénégal yoral leen xaalis fay la ñu suñu xaalis ñu gazé leen et pourtant tey on ne peut pas dire que ces ministres là ils valent plus que ñi nga xamante ne ñoom ñooy les les militaires invalides je ne fais pas de comparaison entre eux mais c'est juste une analyse boo xamante ne dañ koy def par rapport ak li nga xam moom la wax bu fekkee ay avantages il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité man loolu laa gëm parce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay militaires invalides bu fekkente ne dañu leen yoral xaalis mais na ñu leen jox seen xaalis comment se fait que chaque fin du mois ñu war a mën a jox un ancien ministre d'État un million cinq cent jàpp deux millions et quelques un militaire invalide nekk fële li mu joree njabootam sax amu ko. est-ce que traitement discriminatoire amoon ci ñi nga xamante ne les deux personnes yi nga xamante ne ils ont défendu la nation et ils ont représenté dignement ce Sénégal je ne dis pas que décret bi c'est normal ñu dindi ko wala ñu ñàkk ko dindi c'est une analyse encore une fois que j'ai fait par rapport ak deux situations yoo xamante ne xew nañu ci biir réewu Sénégal ils ont défendu la nation ils ont représenté le pays liggéey nañu pour la nation du Sénégal ces donc am nañu droit encore une fois bu demee à la ñu am li nga xamante ne moom mooy seen avantage d'accord naa ci loolu mais encore une fois au-delà de ñooñu am na ñeneen ñoo xamante ne soxla nañu ko yelloo nañu ko te joxuñu leen ko et ça c'est quelque boo xamante ne je le depuis hier bi nga xamante ne jot naa cette information. Ibrahima du moment wu ñuy wax que ni ce des anciens ministres est que mën nañ ko jàngatee comme loo xam ne yoon la muy décret boobu nga xam ne dafay annuler